Euh, jëwriñ ju baax jooju toog mhm. dama leen di masawu coono ah. li tax ma leen di masawu coono mooy mhm. dëgg foo xamante nii tey jii dafa suulu mhm. ñu ko ñu ëpp ci mbooloo bi amuñu sañ-sañu dem yëkkati ko ba nit ñi gis ko dëgg la yéen ngeen jóg volontairement bëgg koo yëkkati ngir nit ñi mën a gindeeku ak coono ngay wallaay wallaay boo xoolee gën gi mbindéef coole yi taxoon noonu yi tegoon ko ko yépp mm. daa ñëw teg seen kanam. Mm. ñu bañ ko. Mm-hmm. li ñuy wax nag. Mm-hmm. tey jii ñu ngi naan cinquante quatre pour cent bi moo xamul. Mm-hmm. mën naa nekk njuumte. ndax léeg-léeg nit mën naa gis dara jàpp ne loolu la mu gis dëgg la te fekk du dëgg de. tey jàpp naa ne fii ñu jëm nii mu koy wone mm. ndax euh, dafa am yu bari yu may seetlu. ci mbir mi tàmbalee ba léegi ndax wax dëgg yàlla jàppoon naa ne waa ni ñu koy waxee maanaam yegg na foofu. Mm-hmm. waaye nag li sëñ Abdoulaye waxoon da nga da koy daal di gis ci jëfam. Mm-hmm. maanaam nit bul ko jàppee li mu wax waaye da ngay. bisimilah waaw dem na. dem na génn fu neex. fu neex kay. ah waa léegi liñ bay saturé. cinq 1. <laughs> non après bul tax di ni boo commencé combat dañuy daw ñëw. dañuy dañuy arrangé dañuy daw ñëw. <laughs> ah kenn. boobaa daf ñuy gën a abu tàggool tàggool. am na keneen ku nekk si ligne bi de joo ko jël tàggatoo moom. waaw kon ñu jël dernier appel bi allo. Oh, dem na. dem na abu. waaw oh, non mooy li nga wax rek comme ni waa ji wax rek. ñun hmm. moom comme nañu yàlla dimbali rek. Hmm. Euh, lépp li ñu nekkoon. moy do euh, ànd ak ne ci hmm. ils ne sont pas nos amis hmm. ennemis. Hmm. duñu suñu ennemi ñun ñun nous sommes là pour la république. parce que ñom république bi politique lañ jaaré pour jëli entre promesse engagement mais ñun citoyenneté active. la wax ak liberté d'expression. débat public. donc dictature pensée unique. ak terrorisme intellectuel ñun mom la xéxal parce que Ousmane Sonko lol la waxone ni ni mo fi am. Hmm. Mhm. moo tax donc ñun ñe biñ fi nek dañ ko wax ni li nga wax liberté d'expression expression nañu si hmm. mais liberté d'expression expression quand même mhm. dañ koy encadrer. Hmm. ba yenn dérive gis nga biñu togué tay mhm. liberté d'expression bu buñu encadrer wul mo indi Cheikh Omar Diagne lal ay ay fondamentaux yu ñu waru lal liberté d'expression expression indi yenn cadre yi. ay ciokek yoy liberté d'expression expression donc fofu lañ nekk ba Hmm. parfois dañ koy wax sax nous ne cherchons pas de followers nous ne cherchons pas ay page yu ni nous sommes ni des influenceurs c'est surtout journaliste bu mag hmm. bu bo xamni ne bi muy nekk jeune reporter ñom Ousmane Sonko ñi ak ñom Diomaye ña école di jang hmm. donc mom parcours bi mu jaar yépp ñetti état yi jaar ci loxo tollatul phase bu muy amé fans wala phase bu muy dégloo nit y compris man mi yàgg suivre actualité té li may wax mo ci nek quand on a des ambitions quand on est ambitieux am ay rêve pour sa république bi da koy bëgg Sénégal république c'est partagé entre deux mm. le spirituel le temporel c'est ça on les encourage mm-hmm. mais quand même ñu am liberté bu ñu gisee dul ñu ne lii dëgg la mais Pastef fonctionne Ousmane Sonko fonctionne avec son monde mm-hmm. ñi wax ni ils vont terroriser encore les gens il faut leur imposer une dictature dans leur officine jox leen ay verbe jox ay langage mm. mais pour les débat public la rek débat public fii lañ ko fekk mais ci règne Ousmane Sonko la mm. parce que ils font des débats de personnes avec des déballages avec des révélations donc loolu pour man parce que tey jii ni Aïda Mbodj maa ngi ko dégg bi mu demee présidente Aïda Mbodj ci euh, xalif bi mm. le xalif a dit carrément Aïda Mbodj ñëpp di dégg sa sa gaay ñoom Ousmane ak yooyu samay xarit lañu waaye gisatuma leen mm-hmm. tey le président est là-bas il nous dit ba bëgg fii laa bëggoon jaar li nga jaar umraak li nga jaar leneen ak neneen ak neneen xam nga dëgg kuy jiite ay nit mm. da koy teg ci dëgg même bu peuple bi àndul ak yow yàlla ànd ak yow parce que ànd ak yàlla moo gën a wóor ànd ak peuple ndax mm. peuple boo xam ni li ñu def yonente yàlla Moussa def ko Seydina Mohamed def ko Serigne Touba mm. Serigne Touba ay nit yu ñu la ko boole Seydi Hadji ay nit ñoo dem yónnee boole ko donc pour man peuple boobu man tant que demuñu ñun bay dem ci résultat mm. duma gëm seeni wax duma gëm seeni kat wa do dafa bëgg gis nga fóon yi mom dama ne ku ku bëgg phone yi loxo la parce que fóon loxo kilifa diiné ba paré pare la ndok ataaye kuy xass kilifa diiné dañu dul xam ñun ban lañuy wax lañuy gëm parce que liñu liñu liñu dégg ci jamono ji ci mm. Cheikh Omar Diagne mm. ci diggante bii dem seeti ci waat ay xalif généraux di leen jox ci wormaal di leen jox cër te décret ba dekk officiel xam nga seen Omar bi mu waxulee ba muy wax te amul nekkul décret nekkul palais mm-hmm. boobu amul problème mm-hmm. mais bi mu amee décret mm-hmm. nga xam ne yow yaa ko ko jox mu attaqué kilifa diine yi xorma mu ngi commencé ci ku laal kilifa diine yi du ma toogandoog yow dëgg la loolu dëgg la parce que dama comprendre tout ni dans les normes bu fekkone ne man dama bok ci bir kër yi. Mhm. damay wax ni ni ñun nañ ajandi visite yi bay régler problème bi c'est la vérité parce que ku tim sey bindu maam ne len limu bindu nañ ko nañ ko ah. parfaire ku taxaw jiñ len ay mafia jiñ len ay leneen ak leneen jiñ seen i juma ay masoni nga ñew yow président bi ko nommé décret ñewat ci bir kilifa diiné di len set te décret ba nga fa batay mhm. pour man amul sens. Mhm. joxe loxo Nana dok ataaya ki saga ki nga xamni ne ni moy saaga kilifa diiné yi. ah comprendre duma ko man mi comprendre comprendre duma lolou parce que pap Amadou sar bu deer immédiatement dafa am wax bu mu wax ne kilifa yoy di bañ jox loxo jigen mhm. te bu nangam nangame ñu dinañu nekk ak ay jigen mhm. ci guddi gi le président de la République dindil décret te mu yoron DER institution financière def fa résultat mais Cheikh Oumar Diagne amul ben résultat bu mu def fa ah. lo enquête moralité dara baxu ci mu toog téye décret nga sacrifier Aminata Mbengue ndjay sacrifier Abdoulaye daoudou mm. Diallo di serviteur de la République mm ba pare téye décret Cheikh oumar Diagne bëgg dem Touba dem ndias an dem tiawon fonu loxo suku le tel lem lemi ah non non non nit nak day jibo bopam mais kilifa diine yi seen wàllu bopp kuréel yi ñu tek ni di xex contre Cheikh oumar Diagne ñom ñoo wara genn wax lolu parce que bi fi Macky Sall mais l'affaire goor jigen bi loi bi mu amé ci affaire Cheikh Ahmad Tidiane Ndaw bi mm. am ñay ñi bi duggal loi ànd sàmm jikko mais ñu ñu tok ànd mm. sàmm jikko yi gis ngeen leen ñu génn condamné l'affaire l'affaire Cheikh Omar Diagne. gis naa waaw mais ci liste 28 am na ñu dem. dugg ko euh, non xam nga Babacar bu ko ne moom dafa bokk ci Diomaye président. waaw mais ah, mais yi maa ngi gis mu génn sànni xeer. waaw non mais parce que poste yi moo yéex mais xam nga dafa am sànni xeer mooy comme les lettres société civile bii def. Mm-hmm. condamné condamné da nga koy ñeme assumer ko. Mm-hmm. mais day ñëw di ray di def ay lettre diplomatique ay ñun de li ñu gisagul ñun nangam mais l'affaire Cheikh Omar Diagne man xamul ndax l'affaire Cheikh Omar Diagne sori soriwuma ci moy mhm. ba may wax ci Cheikh Omar Diagne bobu kenn deglu mo won mais li Cheikh Omar Diagne ñewé ni dañ ko rappelé wat ay vidéo man jamono dama ci wétone seul ci deug la ñep ba ci bir kër te li gëna a légui moy bir keur tarikh ay amna ñuko fay défendre mhm. wala yow le président li ñu bañalon Macky Sall ci Amadou Pape Amadou Sarr nga xam ne mënoon na sax ne ko kaay jéggalu dem def des excuse publique ah, mais da koo démettre te ñëpp seede nii ko amoon ay compétence la mm-hmm. mais mais bii tey kii yor ko pare yaa ngi continuer di dem mm-hmm. donc loolu loolu aussi nañ ko xoolaat ñu ngi ta wax ñëpp nag ci gàmmu gi mm-hmm. di kontaan euh, ci weeru gàmmu gi ñu nekk